الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di seede ne moom dong mooy yoo ñu koy jaam di seede it ne yeneen tam ba Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom la yónni woon ci ñun mu war ñoo jàngal nu ñu koy jaamoo ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ni yàlla yee yoo ñu ragal ko ko ca mooy ñu jaamu ko bañ ko bokkaaleeg dara sant ay xéewalam bëgg ko bëgg ko kawe bépp bëggeel bu ñuy bëgg keneen ku dul moom mbokk suñu borom boobu moo ñu bind suñu borom boobu moo ñuy wërsëg mboole mi xéewal yu ñu xalaatul woon moo ko def ci ñun moom mooy jox mboole mi mbindaa fanam borom boobu la xéewalam ya muur ñëpp amul kenn ci ay jaamam lu dul ni borom bi yàlla man koy fekk fa mu nekk ab xéewalam loole jagleelu ko jullit jagleelu ko yéeféer jagleelu ko ña nga xam ne dañoo lot amuñu benn pexe jagleelu ko it ña nga xam ne dañoo am kattan borom boobu subhanahu wa taala mu ne amul kenn ci ay jaamam lu dul man koy dooleel ci ay xéewalam xéewalam yooyu nga xam ne kenn mënu koo dox digganteem ak ay jaamam loolu moo tax ba ab jullit war a gëm ni mboolem wërsëg wu yegsi ci moom na xam ni fu mu mën a jaarit ci yàlla kese la jóge looloo tax ba wërsëg doo ko sàkkoo ko dul ci yàlla doo toroxlul ku dul yàlla da ngay gëm ne kenn mënu laa jox ku dul yàlla waaye kenn mënu laa xañ ku dul yàlla suñu borom yàlla boobu la ne ca moom du jeex mooy li woom le soxlaalul dara mu ne yéen doomu aadama yi li nekk ci yéen day jeex amma li nekk ci yàlla mooy la sax kon booy yaakaar yaakaaral yàlla koo jël sa xol gàll ko ci moom su neexee yàlla mu nangu lan ko jox su neexee yàlla mu jële ko fa nga def ak yàlla kon borom xel mooy ki nga xam ne day wékku ci borom boobu nga xam ne nee na mooy allatif borom yërmaande ji màgg ji di wërsëgal ku ko neex ca kattanam mooy ki jege ay jaamam di nangu la nga xam ne moom mooy seeni ñaan mooy ki nga xam ne mooy wërsëgal waaye mooy yombal ay sabab ya tax jaam di ca jaar ba am wërsëg su ko defee nga la waaye bul jàpp mukk sabab ba moo lay may sabab ba ci yàlla la jóge waaye wërsëg ba ci yàlla la jóge jëlal sabab ba ca loo am nga sante ko sa borom loo ñàkk nga muñ ko muñ ko rafet ca xam ne yàlla jalla wa ala mooy dogal moo bakk boppam tagg boppam ci ne man maa bind nit ñi ak jinne yi la taxoon ne bind leen mooy ngir ñu jaamu ma soxlaa lu ma ci ñoom benn wërsëg man maa leen di wërsëgal ca may borom kattan gu mag gi loolu it mbokk da ngay gis tey li ëpp ci doomu aadama yi sàkk wërsëg dox na seen digganteeg jaamu yàlla mbokk loolu mooy la nga xamante ni nii mooy ñàkk xam farata bi yàlla gàll soloos mooy nga jaamu ko amma wërsëg bi loolee naam dañ ko war a fag waaye képp koo xam ne nii njënd ak njaay dox na digganteem ak julli képp koo xam ne nii fonk alal dajale ko dox na digganteem ak joxe alzaka ngalluwaay mbokk yow xamoo woon lan moo tax yàlla indi la ci kaw suuf mbokk suñu borom mooy wërsëgal te wërsëg woowee amul raison amul lenn lu ko ñu mën a tënke benn waaye ngi jàngul dara benn waaye ngi amul doole benn waaye ngi daanaka yeewuwul sax yàlla di ko xëpp ay million mu yëkkati ay immeuble am alal ju na gàññ benn waaye ngi nii doon ko yeewu jàng dajale ay lijaasa yu bëri doon borom doole waaye amul lenn lu moomul boppam kon ñu xam ne loolu suñu borom moo koy séddale nu mu ko neexee ci biir ay jaamam loolu kon muy wane it ne jullit da ngaa war a gëm loolu borom boobu mbokk jullit moo ñuy wërsëgal moo ñuy dencal suñu wërsëg da ngay gis benn borom kër gi nii balaa at mee jeex dana ci lekk fanweeri saaku ceeb ana saaku ceeb yooyu fu ci nekk boo ko laajoon dépense semaine prochaine mën na am yoru ko et pourtant dana dund moom njabootam ay ati at loolu kon yàlla ñu gàddul wërsëg moo tax mu ne ay xool leen ñaata daaba ñoo dox ci kaw suuf nga xam ne suñu borom yàlla moo gàddu seen wërsëg picc yaa ngi ni ana seeni magasin baleine yi ana seeni magasin gaynde yi ana seeni magasin waaye ku nekk ci ñoom fi nga juddoo ba fa ngay deeyee suñu borom yàlla dogal na la loo xam ne heure bu jotee mu jottali la ko jox la ko amul kenn ci ay jaamam ko wërsëgam di raw amul kenn ci ay jaamam koy lekk lu dul wërsëgam abadan loolu julit war koo bàyyi xel looloo tax suñu yeneen ci alayhi salaatu wasalaam gis nañu ne sahaaba yi mas na ñëw ci moom ay yu mi yàlla yónni dañoo bëgg nga tëralal ñu ay prix ci marché bi ñii li ñuy jaayee daa cher da wax leen ñu wàññi ko yonent bi alayhi salaam ne leen yàlla de mooy wërsëgal yàlla mooy yombal yàlla mooy jafeel te man day bugguma dajeg yàlla fekk lor naa kenn te wallahi mbokk julit yéen ndaw ñi laaj leen seen bàyyi ngeen bàyyi kër ga pakati sukkar bi muy jar fii fukki dërëm ak ñett ku ne woon buñ demee ba ci kanam dana jar cinq cent et quelque da nga naan kon de baadoo la moom dootul lekkati sukkar abadan la nga xamee ni nii moom mooy ceeb yi ñu daan jaayee cent kilo bi trois mille cinq cent suñu demoon ba ne ne kat jamono ngi ñëw cinquante kilo boobu dañ la ciy laaj ay quinze mille que vingt mille da nga naan baa doola dootu lekk ceeb et pourtant tey ni ceeb bëri moo gën a bëri keroog kon mbokk prix bi amul solo li am solo mooy ndax yàlla yombal na ko ci yow wala yàlla yombalu ko ci yow laajal sunu maam yi tolloon nañu fi jamonoy guerre nit ñi ñu ngi woon ak xaalis da ngay wër doo gis lu nekk nit ñi ñu ngi woon ak xaalis da ngay bëgg yére doo ko am loolee kon day wane ne suñu borom yàlla kese mooy ka nga xamee ne nii moo yombalal ay jaamam moo tax yonent bi alayhi salaam daañu ñaax ne ay yéen nit ñi ragal leen yàlla te rafetal li ngeen di wute kenn ci yéen day wërsëgam yéex a ñëw ba mu tax mukk mu wuti ko ci lu xaraam ragal leen yàlla amul benn bakkan boo xam ne dana dee lu dul wërsëg wa yàlla tuddoon ci moom dana yegsi ci moom balay dee looloo tax nga la way ndawul julit sa wërsëg bi yéex a ñëw ba mu la yóbbu ci agression ba mu la yóbbu ci PMI ba mu la yóbbu yow xale bu jigéen nga dem di jaay sa bopp ba mu la yóbbu ci lekk riba wala lépp loo xam ne ni lu xaram la muñal muñ gu rafet ragalal sa borom suñu borom yàlla moo ñu garanti ni wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib amul kenn kuy ragal yàlla lu dul yàlla dana ko may génn waay wërsëgal ko foo xam ne foo gëru ko fa woon kon nga la waay bul yàkkamti bay sàkku ji loo xam ne nii lu xaram la gannaaw loolu mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala day mooy ki nga xamee ni nii wërsëgam woowu ëmb na nit ñi ëmb na la nga xam ne muy jinne yi boo demoon tey jii fa gën a xóot ca biir montagne ya sax ya fa làqu yàllaa dina fay fekk ak seen wërsëg beneen yaa ngi ne di lekk ay tonnes par jour waaye sànq lañ yaa ngi nii ak yooyi suñu borom yàlla ku nekk la nga xam ne moom nga yeyoo lekk tàggatal na la ko yombalal na la ko na doon loolu ca bëriwaay ba na doon loolee ca qualité ba la am lenn loo xam ne nii rëcc na ko ci loolu jàlla waala loolu bokk ñu xam ni wërsëg yooyu bokk na wërsëg ba ca gën a màgg wërsëg ba la yàlla defal ci sa biir xol nga daal di am la nga xam ne muy ak doylu doyloo la la yàlla wërsëgal kii di Omar ibn al-As radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaam nee na wallahi texe na wallahi texe na koo xamee ni nii yàlla wërsëgal na ko mu nekk julit yàlla wërsëgal ko mu am lu ko doy ay am na fu mu tëdd am na lu mu lekk am na lu mu sol am na lu ko doy gannaaw ba yàlla may ko moom doy loolu lu ko yàlla wërsëgal mu ne lu mel nii day kenn duna koo texe ci kaw suuf donc mbokk milliards yi tasaaroo ak alal ji yaatu yëpp ngar la way nañu xam ne yow julit heure boo xëyee yàlla jàmmal la yàlla wërsëgal la nga am loo lekk am foo teg sa wet am loo sol xamal ne bóor nga ci bóoru adduna yi loolu moo tax ba loolu julit war cee bàyyi xel waaye gannaaw ba it xamal ne bokk na ñu texe ci kaw suuf képp koo xam ne yàlla wërsëgal na ko ba la ko yàlla may dara lu xaram nekku ca koo xam ne yàlla wërsëgal na ko ba amul ci kenn koo xam ne moom lay dépendre mu koy waddaka leen loolu la yonent bi alayhi salaam jàngaloon Ali ibn Abi Talib ne ko ay Ali bul fàtte di baril ay ñaan allahuma akfini bi xalaalika an xaraamika ey yàlla yal nag ma wërsëgal loo xam ne alal ju dagan la ba duma soxla woo di dem ci lu xaraam wax ni nii bi fadlika aman siwaak ey yàlla yàlla nag ma wërsëgal loo xam ne du bala maa faj sama soxla rek tàllal keneen loolu di mbir moo xam ne góor ak jigéen war nañ baril di ko ñaan yàlla yàlla nag ma wërsëgal lu doy ci li nga daganal ci man ba duma soxla li nga xaraam yàlla yàlla nag ma woomalal ba duma soxlaal keneen ci say jaam loolee da ngay gis ne Tirmisi yi solo na ko Albani wéral ko mbokk jurit suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg ñu koy ñaan xatta yéefér yi ko ñaanul da ngeen wërsëgal naam waaye xam leen ne yàlla daa bëgg ñu koy ñaan bu ko defee loole nga xam ne da nga koo am day doon xiiwulu adduna ak xiiwulu alaxira looloo tax mu ñëw ci xadisul qudus yi yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam ni seen borom yàlla day nee na ay yéen doomu aadama yi yéen ñëpp da ngeen a xiif lu dul koo xam ne maa ko leel dee leen sàkk ma leel leen kon day dinaa leen leel ndax la waay yow borom kër ak surga fu ngeen mën a toll dee leen ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yombalal leen la nga xam ne mooy dund bu tee ca dagan kon de yàlla dana leen leel ay yéen doomu aadama yi yéen ñëpp da ngeen a rafle lu dul koo xam ne maa ko waddu sàkku leen ci man ma waddu leen kon de dinaa leen waddu ca loolu mbokk waxuma sunu maam ak mamaat ya waaye fii rek crise bi amoon ci guerre yu mujj yi rek da ngay gis kërub lëmm benn sër moo fay nekk kërub lëmm koo xam ne dañuy tëdd guddi ba guddi dañuy génn ndax kenn amul loo sol kon suñu borom yàlla mu ni amul kenn ko waddu lu dul maa ko waddu ay yéen doomu aadama yi xam leen yéen nit ak jinne bu ngeen daje woon ci benn place ku nekk ñaan ma sa soxla ku nekk ma defal ko lam ma ñaan loolu du wàññi sama ngóor gi lu toll ne yow mi demoon géej samp ca benn pusa la pusa bay wàññi ci géej gi sax loole seen ñaan wàññi wu ko ca la nga xam ne mooy samay xéewal kon mbokk borom baa ngi noonu ñu ñu war a boole sànq wërsëg waaye di ko ñaan wërsëg fu ñu mën a toll gannaaw ba yow julit yow ndawal julit ngan la way bàyyil xel ne alal ju bari wërsëg wu yaa firiwul ne yàlla daa bëgg jaam bi déedéet wërsëg wu xat wërsëg wu néew firiwul ne yàlla daa bañ jaam bi déedéet xoolal yéeféer yi bi ñu daan damu ci kaw julit ñi di leen wax ne ñun ñoo leen ëpp alal ñoo leen ëpp ay doom la chaque ne alaxira bu amoo it kenn duñu mbugal suñu borom yàlla ne déet yàlla lay tàllal wërsëg ñeel ku mu soob mooy gàttal wërsëg ñeel ku mu soob du ne seen alal ak seeni doom mooy wane ne jege ngeen yàlla yàlla bëgg na leen ka jege yàlla yàlla bëgg ko mooy koo xam ne nii dafa gëm tey def lu baax ñu mel nii day dana leen ñeel pay ya gën a màgg ca ñoom ñi ngi nekk ca àjjana yi ànd ak kóolute loolu tax Ali ibn Abi Talib daana wax ay yéen nit nga xam leen ni lii di ak woomle muy richesse nga doon ku riche doon ku woomle wala doon ku ñàkk mi ngi am keroog bi ñu yàlla teelee ci kanamam ba àtte ñu ba ku nekk jot àq ya nga yoroon fay àq ya nga yoroon foofu la ñuy xame ni kii ku riche la kii ku pauvre la waaye amaa richesse ak pauvreté loolee du lu ñuy xam ci àdduna doomu aadama bi xamal ni sa alal ji la yàlla wërsëgal lu mu bari bari munta paase ñetti xaaj benn xaaj ba yaa ko lekk jeex na benn xaaj ba da nga koo jiital allaxira mu xaar la fa beneen xaaj ba da ngay dem bàyyi ko fi loolu kon yow doomu aadama fexeel ba xamal ne yàlla du nangu lu dul lu tey lépp loo bëgg ëllëg gi si biir nga dem fekk ko ci sa borom mu doon loo xam ne lu lay jëriñ nga la way sab ko sab giwun woo xam ne sab giwun wu dagan la su ko defee lépp loo ca sarxe ci yàlla tax loo ca dépensé ci yàlla tax mu doon tuyaaba joo xam ne yàlla lu ko wërsëgaloon ba pare wëlbatiku waat fayaat la ko mu nekkaat la nga xam ne moom mooy ay tuyaaba mbokk adduna bii doo ñu natte yeneen ci bi alei salatu wasalaam nee na law kaanat dunya taajulu inda allahi janaha bauda ma saqa kafiran min sharbati ma bu doon demee adduna yàlla da koo considéré ni mu considéré benn laaf yoo ñi fekke woon tafsir bi passé ñi ngi leen doon wax ne yoo bu la ci gën a rëy passé wul un millième de gramme daga dajale junni yoo doo ko am un gramme suñu borom nag mu ne yàlla bu yeneen ci bari sax mu ne yàlla bu considéré woon adduna comme ni mu considéré benn laaf yoo mu ne kon du ci may yéeféer kaasu ndox yàlla soxlawul adduna jallee lu ko gaayab yi baax lépp lu mu fi joxe da koy nattu kon nga la way alal ju bëri ji ngeen gis ay nit yor ko ba mu tax mukk yéen ndaw ñi ngeen jaay seen diine jaay seen ngor abadan xoolal la nga xam ne moo dagal ci adduna nga jël ko nga doyloo ko sa digganteeg sa borom bu ko defee yàlla barkel ko daal di lay ñeel mbokk julit xam leen ni bokk na loo xam ne lu la yombalal wërsëg mooy ngëm yàlla gu sell ak ragal yàlla loolu day tax ba loo am yàlla barkeel ko ba wallahi ñaari nit mi mën nañoo bokk service kii di fayoo ko cent mille francs kii di fayoo ko cinq cent mille francs borom cent mille yi réalisé ci àdduna loo xam ne borom cinq cent mille yi deful génn wàll ga loolu la la koy may mooy ragal yàlla ak ngëm sa borom xam leen ne ay bakkaar it day yàq wërsëg doomu aadama loo gën a nuur ci bak ci bakkaar la la yàlla wërsëgaloon di gën a ñàkk ay barke moom la suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax ne bu doon te ne waa dëkk bi dañoo ragal yàlla day danaa ubbi ñeel leen barke yi asamaan ak barke yi suuf waaye maadaama doon nañ ñoo xamee ne nii ñi ngi sax ci mbon jàppe naa leen ca la nga xam ne ñoo ngi ko doon jëfee loolu moo taxoon ba xamta mbokk julit tey jii suñu politiciens yi bi ñu génnee seen i kër tasaaroo yor seen i alal fu nañu dugg fa guddeeg bëccëg di proposer doomu aadama yi loo xam ne nii mooy tax réew mi naat ak neexoon ñu boole ca ne ñun day ñu ngi woo nit ñi delloo leen ci yàlla woo nit ñi ci bis boo xam ne gagné nañu daañu fexe ba col gu bon jóge fi daañu fexe ba carte gu bon gi jóge fi daañu fexe ba baar kalandoo yi tasaaroo jóge fi daañu fexe ba indi programme yuy jàngale suñu diine ci niveau yëpp ak neexoon ñooñee boole woon seen programme loolu ndax wallahi mbokk loolu rek moo mën a soqali suñu réew képp koo xam ne bëgg naa soqali réew mi réew moo xam ne dañuy woote woo islam te jaarewu ko ci yóbbu leen ci ragal yàlla da leen bëgg a tardeel bëgg leen delloo gannaaw nga la way mbokk julit xam leen ne suñu yonent alayhi salaatu wasalaam daanañu wax ni amul lenn luy mën a yokk dundu doomu aadama gi lu dul jëf yu baax yi muy def amul lenn luy mën a fanq dogalu yàlla lu dul ñaan goo xam ne jullit da koy ñaan waaye xam leen ne doomu aadama yàlla dana ko xañ wërsëg ci bakkaar yu bon ya nga xam ne moom la nekkee innama jësolo na ko cheikh al albani daa di koy wéral ay yéen mbokk jullit xamal it ne boo bëggee sa wërsëg sax soo bëggee sa wërsëg barkeel lu la yàlla wërsëgal sant ca yàlla naka ngay sant yàlla gëmal ne lii yàlla lu ko wërsëgal ak lu mën a doon ci façon wërsëg yi santal yàlla ci sa lammiñ bu ko jëfandikoo lu dul ca la neex yàlla suñu borom yàlla mu ne wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid sa borom yàlla ne ne séegée ni nga may sant ma leen di dolli heure bu ngeen weddee samay xéewal nag samay mbugal day loolee di ngay gis ne lu tar la mbokk julit xam ne ne mboolem fitna yu am ci kaw suuf na doon ci nawet bi tarde na doon ci ndox muy yàq na doon ci ay wërsëg yu wàññeeku na doon fitna yu am ci kër yi dara warul lu ko dul doomu aadama yi ak seeni bakkaar ak ñàkk sant la nga xam ne mooy xéewal ak borom bi subhanahu wa taala ay ngal la waay mbokku ñu di jël xam leen ne wërsëg bi gën a rëy bu yàlla di wërsëgal ab jaam mooy mu wërsëgal ko aljanna yàlla na yàlla wërsëgal ñu aljanna aljanna jooju la borom bi subhanahu wa taala doon wax inna haada la rizquna ma lahu min nafaad sama wërsëg dëgg ngi nii bi nga xam ne du jeex ba faw amma lu la yàlla wërsëgal ci àdduna bis dana mës a ñëw ngeen teqalikoo amma mu dem bala wala yow nga dem bako loolee jabar la doom la étage la oto la tool la lum mën a doon bis dana mës a ñëw nga teqalikoo ak moom ba mu des wërsëgu aljanna heure boo ci duggee da ngay gis ne wërsëg la wuy gën a yokk abadan abadan jëm kaw loolu it moo tax ba nga la waay sàkku leen wërsëg wu ngeen di dunde sàkku leen wërsëg wu ngeen di taxawoo seen njaboot waaye nga la xam bàyyi leen xel la gën a màgg ci wërsëg mooy sàkku aljanna lépp loo xam ne ni aw doxalin la buy nar a dox sa diggante ak aljanna nga la waaye bàyyi loolu même buy wërsëg suñu borom yàlla tàgg na muhaajiruun wal ansaar alladina uxriju min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana saxaba yi nga xam ne ba ngeen fàggoo wërsëg yàlla may leen ay kër may leen ay tool may leen alal juna gàññi bañ demee ba seen diine nekk loo xam ne lu nar a yàqu la danoo woon gannaaw lépp sëwe ji seen diine loolu it ngan la waaye ndaw jurit ñi bàyyi leen xel sàkku leen wërsëg ci biir réew mi sàkku leen wërsëg ci bitim réew fu ngeen mën a dem ci kaw suuf dem leen waaye ngan la waaye priorité ci seen sàkku wërsëg na doon fexe ba dee tabbi aljanna lii day bu dee daa dëbb sa biir xol suñu borom yàlla dana la booleel wërsëgu alaxira ak wërsëgu adduna amma képp koo xamee ne nii fàtte na aljanna di kër-këril adduna dana doon koo xam ne ku mën a dajale lu bari bari bari waaye yàlla du ko barkeel yàlla dana xatal ak dundam yàlla yàlla wërsëgal ñu aljanna ak lépp lu ñuy jegeel aljanna yàlla yàlla musal ñu ci sawara ak lépp lu ñuy soril sawara yàlla ak lépp lu ñuy jegeel sawara yàlla yàlla subhanahu wa taala wàcceel ñu jàmm ci suñu réew li nga xam ne moom la ñuy dund ci ay fan yàlla yàlla def ko muy jàmm xéewal ñeel waa réew mi yépp lépp loo xam ne lor la ci am noonu yàlla yàlla subhanahu wa taala fegal ñu ko yàlla yàlla yónnee ñu nawet bu barkeel yàlla yàlla barkeelal ñu suñu njaboot yi barkeelal ñu suñu am-am yi wàcceel ñu jàmm ci réew mi wàcce ko ci mboolem réew yi julit yàlla yàlla yëkkatil ñu lislaam yëkkatil ñu ñépp ñoo xam ne ñuy taxawal lislaam yàlla yàlla mabbal ñu kéefér ca toroxal képp koo xam ne da ngaa jàmmaroog lislaam yàlla yàlla rafetal suñu mujj ñun ñépp yàlla yàlla dajal ñu ci àddinaam yi kawe ya allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin